2 juin 2020, le ministère de la Santé et de sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1339 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,24%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 77 contacts suivis par nos services, 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Sacré-Cœur 1 Popenguine 1 Grand Yoff 1 Rufisque 1 Rebeuss 1 Parcelles Assainies 2 Touba 1 HLM 1 Almadies 1 Ziguinchor et Bignona 7 96 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3 836 cas ont été déclarés positifs, dont 1954 guéris, 43 décédés et donc 1838 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di jàllale fi nga xam ne fii la suñu dëkk Sénégal toll ci mbas mi ñu naan Covid 19. si bésu tey bii di talaata ñaari fan ci weeru juin 2020 jot nañ résultat yi ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom lañuy wax contact mooy ñi nga xamante ne. suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di topp te di leen saytu ñaar fukki kaa nag moom la ñuy wax transmission ñu jóge ci transmission communautaire mooy li ngeen dégg ñaan cas communautaire te tey jii ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Popenguine am na benn Grand Yoff am na benn Rufisque am na benn Tëngéej Rebeuss am na benn Parcelles yi am na ñaar Touba am na benn HLM fii ci Dakar am na benn Almadi am na benn Ziguinchor am na ñett Bignona am na juróom-ñaar juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëroon hôpital biñ leen saytoo seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji moo tax ñu ne ñoom wër nañu. fukk ak ñeenti cas nag ba léegi ñu ngi tëdd ci fi nga xam ne moom la wax sauvetage ci suñu l'hôpital yi mooy service de ñi nga xamante ne ñoo tëdd ca loolu hôpital yi tey. seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan dale ko 2 mars 2020 bi nga xamante ne ci la mbas mi Covid 19 duggee fii ci Sénégal ñu ngi toll tey ci ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom yi nga xamante ne ñoom dañoo ànd ak doomu ji ci yooyu junni ak juróom téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoom wër nañu. ñeent fukk ak ñett làkku nañu mooy génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne ñoo des si lal hôpital yi fi mu ñu leen di faj ñu ngi tollu si junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett.